Je m'appelle Monsieur Nia, Abdourahim Nia. Je suis le directeur du cabinet GM Solutions, qui est fait un cabinet d'assistance comptable et d'accompagnement. Donc, je suis partenaire de Teranga Expo depuis la première édition de 2021. Teranga Expo, en réalité, est une innovation composée de structures 100 pour cent privés qui sont euh, dans le privé des partenaires étatiques qui sont venus nous rejoindre mais en principe le groupe Teranga SA qui est une entreprise au capital de 10 millions et qui s'est au Sénégal depuis 2019 qui recrute 42 emplois fixes et plus de 160 emplois indirects est l'initiateur de l'événement Teranga Expo. Oui, il est prévu de faire en trois jours une rencontre entre les acteurs du monde des affaires et potentiellement des Sénégalais, des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, des entrepreneurs. En tout cas, c'est une convergence qui réunit à la fois l'offre et la demande. Il y aura bien sûr des conférences thématiques qui intéresseront plusieurs acteurs, que ce soit les étudiants, les jeunes entrepreneurs et pourquoi pas euh, le monde de la presse. Oui, nous n'avons pas encore l'appui de l'État, bien vrai que nous avons nous en avons déjà fait la demande et il y a une structure qui est déjà venue nous rejoindre, comme je l'ai expliqué. Il s'agit de ASPEX, l'association des associations euh, agents sénégalaises pour l'exportation, qui est venue avec sa base de données, avec ses clients, qui est venue nous rejoindre en se disant que c'est une initiative qui participe au développement du pays. Il y a aussi l'appui de Didier Boups qui n'est pas quand même négligeable parce que quand on est allé le voir, on ne s'attendait pas à cette réaction. Il nous a dit tout simplement qu'il n'aura rien à payer, qu'il va s'engager gratuitement à être ambassadeur de l'événement. Euh, quelque chose qui nous a motivés encore plus à aller de l'avant. Oui, nous avons d'abord remarqué que j'ai pas voulu tantôt citer le nom, mais vous avez vu, euh, je vais donner l'exemple offert corridor que nous connaissons tous mais qui récompense les grandes structures. Nous nous sommes dit qu'il y a des jeunes qui se battent tous les jours, qui rencontrent d'énormes difficultés, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de subvention. Et en plus de cela, ils n'ont pas de récompense. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous allons porter le combat de la jeunesse en leur ouvrant les portes de l'entrepreneuriat, en les euh, ouvrant les portes aussi des foires. On a vu euh, les foires organisées par, par CICES, qui ne sont pas à la portée de quand même, tout le monde. Vous voyez des stands de francs, de 1 de 2 millions, qui ne sont pas offerts à la portée des jeunes entrepreneurs qui ont une boutique et qui n'ont pas les moyens d'aller, euh, d'aller exposer là-bas. Donc, c'est l'occasion pour toute la jeunesse de pouvoir euh, en profiter entreprise bi nga xam ni moo ko taxawal mi ngi tudd Teranga Smart SA mi ngi ci réew mi depuis 2019 li mu am ci ay liggéeykat mi ngi toll ci 42 ñeenti 42 ñeent fukk ak ñaar li mu am ci ay stagiaires ak ñi nga xam te xam ay prestataires lañ ñu ngi toll ci plus de cent soixante téeméer ak juróom-benn fukk kon ci entreprise boo xamante ne ki ko taxawal du sax sénégalais donc moom il se sent plutôt au africain il n'a pas de limite mënta xàmme Côte d'Ivoire ak fii il se dit que il est chez lui et ñun tamit on on l'a bien accueilli donc ñun suñu cabinet aussi ñi ngi xam nga liggéey ak moom depuis 2019 euh, depuis 2021 après la après la crise u 2019 euh, en fait le Covid 19 mu gis ni entreprise yu bari dañoo daanu jeunes yu bari dañoo jaaree fo découragé en se disant que ñun ñu ngi doon jéem a xeex après xam am benn feebar bu ñëw amatuñu ay moyens pour xeex donc ci la nee moom dafay taxawal li ñuy wax. Teranga Expo d'ailleurs sax la noo c'est en wolof looloo ko taxoon a jog en deux mille vingt et waaw li ko mbëbët li ko mbëbëtoon daaw moom laa leen doon wax mooy dañoo jóge woon ci benn kii de crise mu bëgg relancer waat activité économique bi waaye ren dañu ne ñun duñu laal rek benn secteur muy au fait les les jeunes les jeunes qui son au fait dans la vente en ligne wala ñu yor ay boutique non dañuy def loo xam ni ku ci ñëw da nga ci gis sa bopp ndax bu ñu demee bay def ay conférence business cela veut dire que am na ay jeunes yoo xam ni balaa ñuy dugg sax ci business war nañ ñëw ñu wax leen booy taxawal sa business nan ngay def loolu tax ñu invité ay conférenciers international pour ñu ñëw si ñoom wax leen encadrer leen déjà muy benn ñu def tamit xam nga ay forum yoo xam te ni chef d'entreprise yëpp lañ ciy woo di ci woo tamit jeunes yi nga xam te ni dañuy wut liggéey loolu yëpp aussi suñ koy def en fait orienté wuñu suñu lépp rek ci jënd ak jaay loolu moo ci moo jëpp solo waaw ñi ci dimbali nag bëreegul waaye ñu ci sant di ci gërëm ASPEX di agence euh, sénégalaise pour l'exportation moom mooy def Dubaï exposition Dubaï bi donc ñoom bi demee wax leen ko indil nañ ñu seen soutien de taille parce que ñoom déjà rek seen réseau yaa y a rafetlu nañ tamit suñu idée bi bu baax nee nañ sax xëy na dañ leen a yéex a jot waaye déwén incha allah dañ leen ci gën a eh, kii accompagner waat néanmoins nag ñu ngi continuer di def ay démarches pour structure yi nga xam ni état du Sénégal la moom pour tamit ñu ñëw rejoindre ñu loolu daal lañ ñu tax euh, tur bi c'est monsieur Abdourahim Niang directeur du cabinet GM Solutions.